on va parler maintenant de l'artiste Titi Ndiaye lancé sur les réseaux sociaux euh, lu waral li ni mel. loolee nag lu ko war a du leen lu dul euh, ginnaaw euh, voilà benn benn voilà benn émission bu spéciale Korité bu Padros defoon foofee ci ITV. Hmm. bi mu weesoo la ñu gis ni que ay coow lu bare bare ñu ngi commencé ci ndoddu Titi mi nga xam ne ñëpp xam nañ ni que woykat la boo xamante ne woykat bu calme la koo xamante ne parcours am fii ci Sénégal booy xool ci ñi nga xam ne ñoom la jamononteel wala woykat yu jigéen yi moom Titi boo ko tuddee macha allah rek ngay dégg moom nag. jamono gi nag dañoo nekk di ko di ko di ko di ko xas voilà di ko xas yàq deram loolee sax euh, suñu naataango yooyu nga xam ne ñu ngi foofee ca euh, kawteef euh, di Amadou Nimaga Nims Nimaga nga xam ne journaliste bu mag la moom aussi topp na mbir mi ba bind ci li nga xam ne moom mooy article mi ngi naan Viviane Chidid Titi entre jeune Tempa et moi non plus muy ay mbir yoo xamante ne peut-être dañoo jàpp ni que fans yi ñoo soulevé waat loolu te mënoon na ko bañ a jaar parce que tout simplement ku ne xam na ni que euh, Youssou Ndour euh, wala bokk Macky Sall bien avant moo dem dafa am ay euh, ay ay ay artistes yi nga xam ne. recevoir voilà na leen. Hmm, doon leen décorer voilà li nga xam ne rek moom moo di. Euh, lim leen wooye woon bokkoon na ci la fekk mu leen doon euh, élever rek euh, au grade d'officier de l'ordre national du Lion loolee di ay mbir yoo xam ne ba mu amee ñu baree bari jàppoon na ni que fi mu gradé ki nga xam ne moom mooy Youssou Ndour gradé fa Souleymane fay gradé fa ki nga xam ne rek moom moo di euh, Viviane Chidid waroon na fa ki nga xam ne moom mooy Titi mi nga xam ne li mu def ci musique sénégal loolu ñëpp euh, ñëpp ñëpp ràññee nañ ko beneen bi aussi modèle la ci musique sénégalaise parce que bi mu ci nekkee jusqu'à présent mosuñ ko dégg ci dara lu ñàkk fayda loolu nag bi mu amee gis nañu Padros euh, ci émission boobu nga xam ne moom la doon def ci ITV daal dina ñëwaat ci question boobu daal di laaj ci Titi ba xam naka la jàngatee parce que bi mbir bi amee moom Titi jusqu'à présent dégguñu mu wax. Mm, mais fansam yi ñoo doon wax ni que euh, comme lii am na rek moom Titi waroon na cee bokk. Mm. moom sax. booba tey dégguñ ko ci ba ci la ko laajee question bi à savoir ba euh, wala boog ba xam moom naka la jàngatee mbir bi nga xam ne am na parce que ay fansam depuis booba tey ñu ngi doon nekk di àddu ci mbir bi di xam ne ni que moom euh, tiiti waroon na bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di gradé euh, moom Titi lim mu ci wax rek mooy que ni moom loolee rafetlu na bu baax a baax. artistes yi nga xam ne ñoom euh, voilà daal dinañ leen di euh, sargal ci mhm. boobu la mbir waaye moom gradu yàlla moom moo ko gën a lépp parce que moom li ko amal solo rek mooy que ne tey moom mi ngi yeewu di gis yaayam ba noppi leneen li mooy euh, que ni voilà mi ngi koy ñaanal te mi ngi avancé ci ci musique am donc moom mu delluwaat bamtuwaat que ni. Mhm. ñi nga xam ne ñoom la ñoom la ñu gradé. Euh, voilà mérite la dañ ko mérité bu baax a baax mais moom li ko gënal mooy euh, voilà li nga xam ne moom mooy médaille yàlla loolee nag di ay mbir yoo xam ne pour man. juróon na ay ay ay ay polémique yu bare bare mi ngi alimenté quand même beaucoup de discussions sur la toile ci trois jours yi ñu génn mm-hmm. euh, nit ñi di ci wax depuis booba te et je pense que moom Titi waroon nañu mën a demaat euh, xoolaati intégralité wu émission bi maam xalifa Khalifa mm-hmm. euh, pourquoi ma wax ko mooy Titi bokk na ci artistes yi nga xam ne ñu ñoo gën a sonn et pourtant Euh, du def wala mu wax dara pour mériter parfois critiques yi ñuy teg ci ndoddam wala di di ko xas parce que je pense que moom abordé wuloon benn yoon li nga xam ne moom mooy sujet bi mais ki nga xam ne moom moo doon présenté émission moom moo ko laajte question bi moom mu wax ni que moom loolu yëgu ko woon mhm. yëgul woon sax mbir mi mais bu dee loolu moom moo am ñi nga xam ne ñoom la ñu ñoom lañ daal di sagal ñooñu voilà ñoom mérité nañ leen mais gradu yàlla moom moo ko moom moo ko wa moom moo ko gënal. Mm-hmm. question mi posé depuis bu ba mooy lan moo waral euh, Titi wax jooju mu wax mu war a mu war a jur problème bi wala boog lan moo tax Titi wax jooju mu wax ñu war ko forcement dendale ak Viviane d'autant plus que am na ay artistes yi nga xam ne ñu ngi fa du Viviane kese la ñu gradé. Youssou ñu ngi fa woon nga xam ne moom mooy mentoru Titi Souleymane Faye mi nga xam ne Titi ci moom la jaar. mi ngi fa woon donc yeneen artistes nga xam ne ñoom gradé na leen ñu ngi fa woon lan moo tax rek bu coow amee. Hmm. ñu bëgg tout le temps rek di jël euh, titi di ko dóor ci kaw. mais nag mais nag xam nga par exemple. Euh, chaque artiste. am mhm. na ku bokkal génération. ci boo xam ne mais bu ñu bokkul niveau. Mhm. wala tolloowuñ ci yenn yenn yenn médailles yeeg. yi mhm. ñuy yi ñuy yi ñuy fois. mais forcément kooku mooy bête noire am. ba ci football dana ko am. boo xoolee Sidi Diop par force ñu tudd Waly Seck. dëgg la bu tudd Waly tudd dëgg la am na jamono boo xamante ne nii. fu ñu mm. tuddee Youssou Ndour. Mm. ne ne ne Papa Thione. Mm. donc donte ñoom individuellement kenn du wax lu ñaaw sa morom. mais sénégalais yi forcément ak fans loolu presque ñoom mooy dundal seen showbiz. am euh, bu dee Titi Ndiaye ak. Euh, euh, Viviane ak Viviane. xam nañ ne c'est des c'est ñoom ñëpp ay ay ay ay doom yi am Youssou Ndour lañ. Mm-hmm. ñëpp jaar nañ ci loxo mm-hmm. Youssou Ndour. Mm-hmm. tey kenn ku ci nekk mbër nga. mbër mu am. plan. Hmm. waaye ñoom ñëpp ñu ngi jugee ko ci Youssou Ndour. dëgg la moo tax Youssou sax du jàpp ne lii c'est un problème. Hmm. sérieux hmm. moo tax du ci di intervenir day jàpp ne mbiru coow la artiste boo xam te ni dafa am ay euh, fansam te ku am fans. yéene sa euh, sa sa nag muy gañ yenn yi bi ci des nag mooy bu dee. rencontre bi amoon ca Palais ba. ñun journaliste sax yëguñ ko. loolu nay la waxuma la Titi Ndiaye de. journaliste yi sax yëguñ ko. ñu ne ñoo jékki-jékki gis ay photo présidence publiée. nii lañ ko defee. donc nekkul une cérémonie très sérieuse boo xam ne. Mhm. Euh, def nañ ko euh, ba mu war a jur yenn coow yi président Macky Sall moom mooy dem. Mhm. gannaaw ba mu delloo njukkal footballeur yi. delloo mhm. njukkal euh, kilifa diine yi. mu xool rek ñenn ñu mën a defal yenn yi mais si ça a été très bien programmé. normalement Titi Ndiaye mérite d'être couronné. donc li mu wax nag ne couronne suñu borom moo ma gënal. waaw waaw waaw couronne boobu kay moom la ñëpp am sax nag. dëgg la waa parce que kenn ku ci nekk la ngay ndamoo ci sa activité. suñu borom moo la ko defal du bu doon nit ñi doo yegg mhm. parce que nit ñi chaque jour ñoom ci sa kaw pour yàqal la mais suñu borom moo décidé à ce nga nekk euh, borom talent moo mhm. décidé à ce nga yegg fenn fii mhm. euh, percer rek kenn ku ci nekk liggéey voilà aussi c'est une euh, artiste très talentueuse lii wax li mu ko waxee loolu la demee mooy daf ko mérité sénégalais yi nag waaw force ñu def yu dëgg la mais titi eh. titi daal sonoon nañ ko te te booy seetlu Titi ndeysaan d'habitude bu xam nga am na ñoo xamante ne ndeysaan eh, eh, eh, elles sont pas bonnes en communication. Mm-hmm. Euh, te loolu fu ñu waxee faxas daal voilà même même bu du faxas daal parfois mën nga wax loo xamante ne kenn ku ci ne à chacun sa façon d'interpréter les choses. par exemple man tey mën naa benn wax ju ndaw wala nga wax wax ju ndaw moom ma interpréter ko d'une autre manière alors que fi nga buggoon waxee bokkul ak foofu. Euh, Viviane génne woon na fi benn son ay jamono mooy album bi mu njëkk génnee ci ci ci afrobeat yi. Mhm. génne fi No mhm. ba fekk na Titi bi Viviane génnee son bi moom da doon déglu son bi di ko cons di ko cons di ko déglu bu baax a baax ba benn jour waa Sénégal invité woon ko benn émission. di wax ak moom ci album Viviane bi mu ne ko mu ne No Stress bi Viviane non boobu moom daf ko tàndu ba mu mënatu ko. xam nga tey yàgg yàgg nga tey di def émission tey nit ne la non maam tey moom sa émission démb bi mënoo ko boo moom da ko tandu mënatoo ko mhm. loolu c'est une manière de te de te féliciter mhm. de dire que ni tey lii kat démb baar bi yéeg na aju na. Mhm. mais loolu titi waxoon. démb reconnaissance la sax. artiste bi moo bu ko defal moroomam. voilà ak ak yomb ak a jafe. nga laaj sa moroomu artiste dara. waay euh, mu wax ci moroomu artiste mu wax ci lu rëy. mi ngi noonu loolu eh. bi ko titi waxee woon. dafa ko mujjee woon rëccu li tax mu mujjee ko rëccu mooy gars dañoo ne mooy waxu tànd boobu mu wax dafa soxor dañoo ne mënu ko mujj gi ba mu indi woon benn genre tontu diggante Viviane ak Titi ba Titi léegi mu décidé ne heure bu toogatee ci plateau dootul tuddati turu artiste parce que heure bu tuddee turu artiste après lu ko ci fekk du neex. Mm-hmm. après ñoom fa la ñu jëlee di commencé heure bu titi waxee dara xanaa kon titi tey bu waxee kon tey ci affaire lii amoon euh, palais day day day wax ak day wax ak Youssou Ndour. Mm-hmm. wala mu wax ak Souleymane Faye ñi nga xam ne ñoom ñaar ñoom jaar na ci ñoom. il faut que ñu bàyyi di jël suñu. tant d'autres aussi artistes qui <laughs> mi ngi noonu mi ngi noonu donc. Euh, ci affaire boobu ñu waxaale ci ndayale yeeg bàyyale yi nga xam te ni artistes yi en ñu amee seen cérémonie nañ ko def te président mm. waxuma président mais yenn ci ay ministre di wax ne mm. nañ ko bàyyi man jàpp naa ne Eh, nañ bàyyi rek Sénégal fa mu ne woon mu ne fa. am na loo xam ne moom des ci dugg. dëgg la waaw léegi nag te encouragé leen surtout te encouragé leen surtout parce que tam jël mm. euh, jox cër tam cër bi da ko yeyoo rek. Mm-hmm. waaw boo ko sànnee ñu jël yeneen i président di leen tuddee dañ naan kuy wàll yàlla si dafa fekk sa dëkk daa tëggul. Mm-hmm. kon nag kenn ku ci nekk bu ñu la joxee bés la nga ca mën def ko après mu jeex. waaw te bañ a jël xaalis parce que l' essentiel yow. Mm-hmm. soit soit sérieux ba doo laal alalu askan bi. loolu rek mooy mooy kii mission bi nekkul ci duñu defati déedéet bi mooy alalu askan bi moom ba fa la sant. dëgg la ak dugal ko am war dugg. <laughs> Hmm. loolu boo ci amee assurance. dëgg la tuddee demal nga dugg. Hmm. nga taxaw fa. Hmm. parce que kenn ku ci nekk yaa ngi salaire. te ñii di la sollicité ñoom ñett nit ñeenti nit ña fay teew ñoo la doon jàppale. dëgg la ba nga ba ngay jot nguur. bañ lay tabbu fedd fi kon nag je pense que loolu teraagal te fii lañ ko fekk fii lañ ko bàyyi. dëgg la am suñu conférence. jox ko benn jox ko benn kilifa. loolu dara nekku ci. parce que boo fa dugal sa loxo foofu da nga ko dugal feneen. dëgg fii lañ ko fekk fii koy bàyyi.